d' accord alors euh, Aliou Sow comme ni ñu ko waxee léegi euh, actualité bi la ñuy dugg bu mu mel ni rich na bu baax a baax donc euh, ñu commencé ak Walf Quotidien mhm. comme d' habitude bu di bu baax bi. Mhm. donc mu mel ni sax pratiquement une yëpp ci 23 juin bi nga xam ne amoon na ni ki démb. Mhm. moom la ñu accentuer seen une donc Walf Quotidien def à une commémoration du 23 juin la bataille de l'héritage la guerre des pancartes a eu lieu l'unité dans la division. dix ans après les de déballent mu mel ni nag Aliou Sow démb gis nañ euh, ci gàttal euh, euh, ni nga xam ne ku jekk langue politique bi ak ñi nga xam ne dañoo far ci ci nguur gi célébré ñoom ñaar ñëpp li nga xam ne moo di 23 juin mais dans la division ñenn ñi ñu ngi woon place de la nation ñeneen ña terrain bu Grand Yoff. ça veut dire que il y a quelque chose qui ne va pas. Mm-hmm. quand on dit l'unité dans la division, mhm. euh, s'en fait un joli paradoxe. Mhm. Parce que euh, vous ne pouvez pas être unis mhm. en même temps et unis et divisé. Mm -hmm. Si vous êtes unis, ça veut dire que vous partez dans le même sens, ça veut dire que yéen yoon bi ngeen jëm, yoon bi Mais il se trouve que euh, euh, Olof dafa ne euh, euh comment dire lu lu ram ci ñag ba. ca la jëm. ram ci ñag ba euh, division yii. mooy continuer nekk ci ñun ci suñu biir. Mhm. d'abord dans l'opposition et après si toutefois il y avait la maîtrise du pouvoir parce que en réalité lenn kese la ñu war a am mooy benn benn et un seul et unique objectif. Mhm. mooy fexe nan la ñuy def pour defar réew mi. Mhm. vous savez moi j'aime bien les marches. mais j'aime bien aussi euh, rendre intelligents les peuples. en général je parle en général te pour loolu je pars du principe que nit dafay juddu am mooy que mu am ay anomalie mais nit day juddu intelligent mhm. nit day juddu ak xelam sauf bu amee ay anomalie yoo xam ne nit ki da koy judduwaale ay feebar ak yi demee noonu ci bopp ci machin et mhm. kon nit am na yoo xam ne loolu ngay def ci boppam loolu rek lay màggee te doxalin boobu rek lay am pourquoi ma wax loolu parce que il se trouve que cette hypocrisie ambiante bi nga xam ne mooy exister ci ñun. Mhm. nekk dans notre vie de tous les jours moom mooy feeñ ci lii ngeen di gis nii. Mhm. li nga xam ne moom loolu ñuy dund ñun chaque jour ci suñu kër yi ci suñu xarit yi suñu diggante ak suñu nawle yi mhm. et cetera les suñu suñu liggéey yi suñu dundin chaque jour suñu dëkkandoo yooyu ñuy dund loolu moom mooy xew fii donc forcément dafay am day day day day day feeñ ci ci ci population bi day feeñ ci nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kaw réew mi di ko jiite. je vous assure d'une chose te xam nga lu tax may wax nii ah. avec Amia c'est parce que benn parce que j'en ai marre. ñaar mooy je reste persuadé que ni affaire bi du changer. loolu man moo ma metti parce que dama gis li nga xam ne moom mooy ñëw on ne peut pas dire l'unité dans la division loolu amul. mu ne leen unir ba pare ngeen ngeen ne yéen yéen vous êtes unis. Mhm. ba pare diviser en même temps c'est pas possible. Mhm. ou vous êtes unis et dans l'union si je peux le dire comme ça. Mhm. encore parce que il faut ngeen continuer di unir pour benn objectif parce que il faut que vous ayez le l'objectif commun. te benn kese la war a doon mooy ñun dañu jog pour politique dañu jóg pour changer réew mi. ana lu tax ñu bëgg changer réew mi. te je crois que pour changer réew mi lenn kese la ñu soxla mooy. pour que les populations am neen parce que mu am une égalité de traitement chez les populations population yi seen bopp ñoom ñoom seen dundin. Mhm. mu baax ñu am ce minimum laa boo xam ne nit daf ko war a am ci dundam ba ba muy dee. mu fu mu dund ñaari fan mu ñaari at mu dund ñaar fukki at mu dund téeméeri loolu daf ko war a am moom mooy nit ki dafa loo xam ne ko war a am dafa war a lekk. Mhm. dafa war a lekk ba suur lekk ñetti ñetti bool moo xam moom nit ki loolu la war a am nit ki dafa war a faju bu feebaree si loolu sax mu mel ni mhm. ñoom dañoo fàttee tey jii souffrance bi nga xam ne sénégalais yi ñu ngi koy dund parce que bu fekkee ñu nekkoon fële ca euh, place de la nation ñoom euh, gis nañu Amadou baax Abdou Karim Sall. ku ci mhm. nekk jël say oto yëpp ci say nit. ñu sol sa ay t-shirt def seen i pancarte ñi nga xam ne aussi ñoo nekkoon euh, fële ca terrain bu Grand Yoff aussi gis nañu Ousmane Sonko et autres ku ci mhm. nekk yow tey ji yaa ngi wax non non ci troisième mandat troisième mandat du fi am fàtte tey euh, euh, jafe-jafe yi nga xam ne amaana sénégalais ñu ngi koy dund gis nañ dund bi cher na problème sanitaire yi nga xamante ne moo fi nekk di prévaloir entre autres problèmes yi nga xam ne amaana mënoon nañ ko fa soulever wala wala sax ñu ñëwaat fàttali nit ñi tey solos juin lii ci slaayu 23 juin li waraloon 23 juin mais dafa dem ba mujj gi finalement dañoo andi beneen euh, objectif mu nga xam ne amaana ñun sénégalais xamuñu woon ni lii moo tax a jug 23 juin. bële M2 M 2 m m M23 bis eh bien ñooñu benn la mooy non au mhm. ñoom loolu moo leen tax a jóg c'était pas le 23 juin. dañoo xamante dëgg te yàlla. bu fekkee ne nag ñun ñëpp dañuy dee après ku nekk bàyyi boppam ak yàlla. Mhm. objectif bi. moom mooy ñooñu M2D. Mhm. mooy jóg pour faire tout pour que troisième mandat bañ a exister loolu moo leen yóbbu woon foofu mais c'était pas pour célébrer véritablement le 23 juin 2011 doon loolu. lii dafa am contenu principal bi. li leen dafa tax a jóg mooy dem xeex pour Macky Sall bañ a am troisième mandat. Mhm. ok beneen bi. Mhm. place de l'obélisque de la nation ñooñu dañu ñëw ku nekk di wane sa bopp à titre personnel pour rek def benn mbir mooy ëllëg ñu taxaw ne ñoom ña nga fa woon que di marquer seen présence pour wane seen bopp ndax ñoom seen avenir politique moo leen intéressé. Mm-hmm. teewuñu de. dañuy yónnee guerre pancarte la woon. xëppale pancarte euh, oui dañuy yónnee dañuy yónnee. dañuy yónnee ay nit. Mm-hmm. ne leen dem leen ngeen taxaw ñëpp xam ni. man am naa fa ay nit yu fa nekkoon. Mhm. Mhm. li ci des ngëneelu population bi li may doon wax noonu xiif. Mhm. réglé xiif. réglé lekk réglé naan réglé faju réglé feebar faju réglé xale jàng école réglé transport bi normal réglé réglé réglé ku feebar nii tout de suite war a dem hôpital ñu faj la tout de suite. man man dëkk boobu laa bëgg man. man dëkk man dëkk boobu laay xeex. ku feebar dëgg-dëgg ñàkk xaalis am xaaj dañ lay faj par force te ñi waa réew mi ñooy dajale seen ñu jël ci faj la yow par parce que réew mi ñun ñoo ko bokk te julli bi benn la. Mhm. ci yooyu laa bëgg ñuy xeex. mu wóor ma ni lekk bi nit day lekk par force. Mhm. am ak ñàkk am te nit du fanaan ci mbedd. man loolu mooy sama sama gis-gis. ne me dites pas que dans les pays occidentaux am na ay nit yuy fanaan ci mbedd yi. Mhm. képp ku fanaan ci bi bitim réew. ci dans les pays occidentaux dans les pays riches chaque weer am nga loo lekk chaque weer am nga fu ñu la mën a yóbbu waaye yow yaay bañ. parce que ce sont des clochards parce que ay mandikat lañu <laughs> parce que ceci parce que cela mhm. ce n'est pas vrai képp kuy fanaan ci réew bitim réew parce que damay dégg ne dégg naa sax monsieur président de la République oh. parce que même dans les pays occidentaux il des gens qui euh, yoo xam ne ñu ngi fanaan ci àll bi mhm. ci mbedd yi ñooñu di fanaan ci mbedd yi képp ku ci nekk pays occidentaux yi laa wax. pays développé képp ku ci euh, nekk ci mbedd bi su bu fekkee ni da ngay jënd sa xaalis bi ñu jox weer bi da nga koy jënd ci mbedd mi xaalis boobu dañ la koy jox par weer pour par solidarité. nit ki nag mënoo ko forcer forcer forcer ne dangay lekk par force. waaye mën nga ko dimbali par force. mu leer ne kii am na traçabilité. man loolu laa bëgg ci loolu laa bëgg ñuy xeex ci yooyu laa bëgg ñuy waxtaan ci loolu laa bëgg mu nekk fondement esprit M23 Donald man ce que je je vais dire ci wàllu gis nga gis nga euh, maa ngi koy mbir mi pour man c'était pas une célébration warul woon nekk célébration mhm. ça peut être que nañ taxaw ne ok xeex nañ ba dans régime ak yu demee noonu jàppal bàyyi ok d'accord y a parce que processus la euh, boobu noonu la tàmbali ba processus la am na yu bëri yu jox joxe intervalle un boobu mais dama bëgg ñu bàyyi xel ñi nga xamee ne en fait maa ngi koy wax tout à jot nañ ci ñàkk seen bakkan pourquoi est-ce que mu déggoo benn yoon bu fekkee am na kenn ku ci def discours ba bàyyi xel ñi ba ba ba wax euh, def mm-hmm. un clin d'œil nga xamee ne que mooy famille famille ñi nga xamee ne que seen papa seen yaay amoon na ci ay ñu tëjoon prison est-ce que defoon nañ ko cest à souvent nañ ko wax mm-hmm. que ni ñooñ bu ñu doon def warul woon nekk célébration parce que booy célébrer da ngay fekk nga kontaan mais lii nii du contentement pour pourtant laa gis seen kanam démb ña waxtaan di tàppante ku ci nekk di ay cas yoo xam mhm. mhm. ma ko jàngatee mhm. yoo xam ne mooy gën a metti 23 juin dëgg la mbay li mu def la bataille de l'héritage euh, tey moom laa maa ngi soo gis euh, titre bi sax euh, tey moom laa gis ci sama moom laa bi ma seetaanee sànq dox dox bi loolu laa gis kenn ku ci nekk sa intérêt personnel moo la tax a jóg maanaam looy donn wala fi nga nekk nga gën faa dëgër ay pancarte di war ni Macky Sall ngi lay jàppale ñee di àndoon di manko ko pour mën a yor ngóor gi mais tey jii li mën a gën a metti mooy ñun sénégalais yi ñoo war a am suñu fulla ak suñu fayda sànq maa koy wax gis nga nit euh, bu la yebee ci yow la mhm. foog nga war a wan ko la ak fayda gis nga 23 juin bii tey ñoo xaar benn lan moo ko taxoon a jug pour wan Ablaye Wade ñun sénégalais jublu nañ mhm. ñun moment bi lan lañ war a wan Macky Sall liggéeyal ñu suñu réew mais pas di dajaloo di la wan ni dañ la fi jëlee après ñun ñu xëj ñun ñu séddoo mhm. séddoo moo leen tax a jug dajaloo pour après toog séddoo ñee di wane ni li ñu séddoo ñu nan ñu ko gën a dëgëral mm-hmm. loolu kase la léegi nag ñan ñoo ciy dee doomu baadoola yi mm-hmm. ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw bu ñu fa bëggee faju duñu ñu faju bu ñu bëggee tey jàngi mënuñu koo am tey ñooñu ñoo ciy dee mm-hmm. il est temps tamit ñun sénégalais surtout jeunes yi man mënuma d'accord jeune boo xamante ni war nga dem liggéeyi wala war nga dem lijjanti loo jox sa njaboot wala say waajur ñii di la utiliser ngay taxaw fii di fa perte temps muy ci ñaari camp yëpp tamit ñu conscient xam ni mhm. ñun ñoo mën a defar suñu réew mi mais suñu autorités yi seen intérêt personnel moo leen tax a jóg mhm. ñii dañoo bëgg a jot ñii di dëgëral la ñu yor rek dëgg la surtout tey ji bi mhm. euh, Aliou Sow am na yu bëri yu yuy liggéey ci société bi ah di réclamer seen ay seen ay moomeel ñeneen ñi dàq nañ leen ñeneen ñi aussi dañuy subir benn euh, injustice seen seen seen ay bërëbu liggéeykaay tey opposition bi xam nañ loolu lan moo tax porté wuñu seen combat mais ne fi non au troisième mandat non au troisième mandat mel ni loolu rek am Sénégal. mais si je suis euh, énervé à ce point là par rapport à ces manifestations là. Mm parce que lii moo tax démb je je l' ai dit ici sur ce plateau. Mm parce que c' des intérêts personnels justement qui sont mis en exergue. Mhm. et et man je ne peux pas être d' avec ça. Mhm. moo tax M23 euh, rassemblement de réflexion la waroon def de réflexion créer ay séminaire toog waxtaan ci 23 juin ban ban ban lan moo taxoon 23 juin am ñu ñu ñu tenir en considération sur les attentes des populations réfléchir sur des solutions par rapport ak demande bi est-ce que Macky Sall bi mu fi ñëwee ba tey Euh, après le 23 juin yàlla def ko mu nekk mu nekk ci nguur gi est-ce que Macky répondre na aux attentes des Sénégalais par rapport ak li taxoon juin jour boobu ñu jóg ko mhm. li ñu li mu war a lijjanti est-ce que lijjanti na ko mhm. qu'est-ce qu'on doit faire est-ce lan war a mën améliorer ba élection présidentielle yi di ñëw en euh, ñun lan la ñu war a prévoir à quel niveau ñun en tant que opposant la war a influencer pour avoir pour être une opposition objective xam nga dama leen waxoon sànq ni nit day juddu intelligent. en principe bu amul problème bopp wala cerveau lépp normal nit yi dafay dafa dafay am xel parce que yàlla loolu la ñu def. ñun du ay mala. yàlla ñun la gën a bëgg ci ci ci li mu créé. comme du ñu ay ay nit lañu te dañu am euh, euh, euh, sens dañu am sens dañuy xalaat donc ñun bu lu ñu def suñu bët bopp rek. ci loolu la ñuy màggee. boo demee chez les chinois ni ñuy dundee façon bi ñuy organiser seen biir ni ñu def pour liggéey Mao Tse-tung boo leen allez lire le livre rouge de Mao tse moom bi muy ñëw mu ne moom day révolutionner la Chine. dafa mhm. bëgg Chine fii ak vingt ans mu ne trente ans mu nekk meilleur mu nekk plus grande euh, économie du monde et eh loolu waa ji daf ko bind te loolu mu bind te loolu la def tey. Mhm. xam ndax dégg ngeen li leen di wax. waa ji loolu mu waxoon noonu mu bind ko. loolu la def te nit ñi ko topp ci ginnaaw ñoom exactement loolu lañu def. Mhm. mais allez me dire qu'il y pas de démocratie en Chine. mais qu'est-ce qu'on en parce que finalement chinois yi adduna bi yëpp ñu ngi koy téye tey. Mhm. li ñuy liggéey ci seen réew. ñun moom la ñëw di utiliser déchets yi ñëw di utiliser di ko dundee. Mhm. doy na ngeen xool xale ci tali bi. Mhm. ñuy jaay yëpp. ci Chine la jógee parce que dañ ci am ba dayal donc dama xam ne liggéey kese moom moo wóor ay pamtipa di tëb di bés kii di wax fii ñii di ay lambar lambari Sénégal ñëpp ay lambar parce que finalement ils ne font pas véritablement le travail qu'ils devaient faire pour ce pays pour l'intérêt du pays parce que gis nga boo ko bëggee def euh, ci comportement bi la mhm. léegi nga xalaat gars dee rek ay ñoom Mamadou Diop rek mhm. a mhm. triste je te jure warul nekk fête mais man j'ai été choquée ba ma gisee reetaan def nii tàppante keneen ki yéeg ci kaw podium ba toog man dama ne ñii lan moo leen tax a jóg en réalité c'est quoi mbégte la ñu am ci rassemblement bi ñu def nii wala dañuy xalaat tey jii askan bi dinañ kontaan ci ñoom pour mën leen jox li nga xam ne moo di seen voix et c'est c'est écœurant loolu je crois que je man man sama xalaat je euh, euh, euh, pour changer te du nii lañ koy changer mm. man man man du change façon bi laa gisee man li ma gis mooy li may wax nii te li may wax ni bu ñu ko defee. Mhm. Sénégal dina changer. gars yi defee nii parce que ça voudrait dire que parce que man maa ngi am sama bët exactement ci li xewoon ci 2012 2011. Euh, e. mhm, mhm. moment bi gars yi c'est c'est c'est gis ci diggante bi man gisuma fi benn changement. am na ñoo xam ne dugg nañu. am ñoo xam ne génn nañu. am ñoo xam ne bokkoon nañu am ñoo xam ne àndatuñu. et cetera jaxasoo bi toujours. ci wàllum intérêt personnel la. Mhm. ci idée yi c' est jamais pareil. booy digle càngaay na fekk nga ba mhm. vidéo bi ñu doon gis euh, démb. ñu koy mhm. ñu ko defaat ko ci réseaux sociaux yi. bi ci jamono jooju la euh, lañ doon euh, nuñ koy waxee ci far ba Farba Senghor mhm. ah, ah, boobu mi ngi nekk ministre ci la ci nga gis vidéo bi nga xam ne dañ ko doon sànni xeex mhm. di ko saaga ba ki nga xam ne moom moo moom mooy moom moo doon yor kaaraange moom moo ko doon nëbb di ko lii pour mu daw dugg mhm. moom mi ngi dem sax bay tontu mais gis nga am na lu ñu ko sànni ci biir vidéo bi kooku tey ji mi ngi ci wetu ki nga xam ne ni tey ji moom moo ñu jiite te ci jamono jooju Mm-hmm. moom ñun dañ doon xeex ndax ñoom boobu ñu jóge fi mm-hmm. ci jamono ji moom mi ngi fi toogaat parce que mm-hmm. ki fi toog ci jamono jooju mi ngi doon xeex ak moom tey mu àndaat à côté gis nañ Mame Diarra Fam aussi ci manifestation bële alors qu'autant mi ngi woon ci régime bañ doon xeex la bokk waaw léegi léegi <laughs> mooy ma ne la quel paradoxe la l'unité dans la division moo tax ma ne ma ne ma ne ma ne lii nii il suffit juste d'être euh, sur le plan euh, donc euh, pédagogique extrêmement stratégique. Mhm. di di wax ak sénégalais yi li nga leen war a waxal pour mu dugg seen bopp ba pare bàyyi leen ñu réfléchir. Mhm. mais il faut pas que ñuy bàyyi gars yi di continuer di leurrer sénégalais yi. Mhm. toujours la même méthode. la même façon de faire pour que ëllëg ils refont exactement la même chose. moi je n'ai pas envie de ça et je vais le combattre. du héritage du moomeelu kenn Aliou Sow du du moomeelu kenn. te il faut que ça s'arrête à un moment leen ko. yéen ñi nga xalaat yéen yaa leen jiite réew mi yéen Euh, nañ dem affaire baa ngi ñëw. Aliou il faut ñu wax ci conseil des ministres bi nga xam ne amaana am na ni ki démb ah, am mais dafa mbir mu doy waar mu nga xam ne amoon na ci conseil des ministres boobee donc le le quotidien dikk si di xam ne ni que daf Macky dafa daal di nommé benn waaye bu nga xam ne mi ngi woo ci turu euh, Moussa Gadio ancien euh, adjoint au sous-préfet de de Thiès mu mel ni moom décédé na depuis février mais démb dañ koo nommé foofee ci conseil des ministres mais Antoine Diome a essayé de corriger l'erreur plus tard dans la Euh, pour ñu wax ni que keneen la keneen la ñu nommé mais lu waral lii décédé na depuis février quatre mois après kan moo doon percevoir salaire am pourquoi le président Sall amul information boobu noonu. bah je sais pas fait penser tout suite à décret donc de grâce bi nga xam ne. Euh, Diallo. Amadou Wari Diallo mi ngi woon ci biir. Mhm. te kooku dañ ko jàppoon parce que dafa doon trafiquer médicament à hauteur de un milliard donc euh, cinq cent millions pratiquement. Mhm. Euh, waa jooju ñu tëj ko. Mhm. mu nekkoon en appel. Mhm. vidé guñu définitivement euh, donc donc donc le le le la procédure. et eh mu nekk ci biir kaso bi. ñu defal ko demande de grâce. bin dugal ko ci ci ci liste bi. dem yóbbul ko Macky Sall. mu ko. waa ji génn ndànk. dellu Guinée tranquillement Fouras euh, daal di xëddeen. Mhm. te jugé wuñ ko benn yoon. jugé nañ ko benn yoon ba tëj ko waaye dafa nekkoon en appel moom. ak ah, procédure bi jeexagul. jeexagul kenn vidéo ko effectivement. Mhm. ci lañ ko ci lañ ko defal grâce. Eh, eh. yónni ko ko kan moo def grâce bi kan moo ko intégré waajoo ci biir. Mhm. procédure bi mi ngi commencé ci administration pénitentiaire turu nit ki. ñi war a gracer diw ak diw ak diw ak diw la. diw fii la toll. pour pour ñu pour nga bokk ci list bi. am na critère am na dafa am ay critères. <laughs> exact waaw. mais mais Wuri Diallo boo ko ci woon. Mhm. loolu loolu ñi ko def ñi ko dugal tur bi ci biir xam nañ ni loolu waa jooju nekk. E-, éligible ci critère waaw éligible ci biir. <laughs> Uh-huh. pourtant fexe nañ ba affaire bi jàll circuit bi mais bu demee sax boo demee ba palais de la république. Mhm. am na service juridique boo xam ne yu bari yoo xam ne avant président bi di ci teg loxoom. Mhm. ñoom ñoo ñoom ñooy ñoom ñoo koy euh, saytu. xool ndax euh, toutes les conditions sont réunies parce que le président il n'a pas le temps. waaw waaw 24 heures dafa gàtt pour un président de la république. il faut mu nelaw il faut mu jóg il faut mu wax ak njabootam. il faut mu mhm. dem liggéey il faut mu daje ay nit il faut qu'il gère le peuple sénégalais 15 millions 16 millions de personnes. Mhm. donc vous n'avez pas beaucoup le temps donc il faut que moom ñoo xam ne ñooy anticiper ci liggéey mhm. bi ba nga xam ne mais ce sont ça doit être des gens de confiance yoo xam ne bu ñu la tegalee kayit dafay wóor ni man mi bu ma signé. li may signé leer na nañ li ma waroon saytu man. parce que aw ma temps am na ñoo xam ne liggéeyal nañ ma ko ba pare. Amadou Wuri Diallo mi ngi woon ci biir mbir mi c'est exactement la même chose parce que kii nii ñu def fii nii yaa ngi koy wax sànq euh, en attendant euh, euh, <laughs> c'est c'est rigolo parce que parce que yaa yaa ngi koy wax sànq ma yaa ngi naan ana ana ana salaire bi mu doon percevoir. ku ko doon ca. kan moo ko jël. fu mu doon jaar circuit bi nan la demee qu'est-ce qui s'est passé. Mm. comment cela se fait-il que man en tant que ministre de l'intérieur je tiens papier ma xalaat ni. Mm-hmm. kii dañ dañ ko war a nommer béréb sàngam. Mm-hmm. mais kii déjà il faut ma xam ci ban poste la nekk ba pare déjà il faut ma xam mooy kan. Mm-hmm. ban poste la nekk fan lay liggéey béréb sàngam lay liggéey. Euh, bis sàngam la fa def depuis euh, euh, lieu d'affectation fii la nekk. de temps en temps de bis sàngam ba bis sàngam. mi ngi foofu ba tey mais waa ji bis ba bis sàngam ci diggante bi dee na waa ji nekkatu fa. Aliou Sow lii est-ce que du dëggal ni le président Sall Aliou Sow il est mal entouré oh, et qu'il ne détient pas toujours les bonnes informations dafa mel ni lii aussi daf koy dëggal kan moo wax le président est la le mieux euh, devrait être la personne la plus informée ça devrait être le cas mais lii ça théoriquement ça devrait être le cas mais ça voudrait dire que mbir mi leer na mhm. mais mais mais ça ne marche pas en réalité lii day wane ni rek nii comment comment fonctionne le pays. Mhm. dëkk bi ni ñuy liggéey que lii moo feeñ. parce que c'est voilà je pense que ñoom ñoo yor lépp lu aju ci wàllum maanaam euh, préfet yeeg sous préfectorat yeeg yooyu. Mhm. Mhm. administration territoriale. merci beaucoup. alors comme bu bu bu loolu nan la mën a la leen mën a rëccee daal nan la mën a rëccee ba ministère de l'intérieur ba yegg présidence. mais mais est-ce que rëcc la. Hmm. mais coro jar na ko xool tamit <laughs> est-ce que lu ci laxasu eh, si si. <laughs> mais bi dafa leer nañ coro. waaw dafa leer. si si ba mu dem ba ci président. mais mais bi ba ñu signé. dafa leer coro ku dee ku dee. ba dëkk lay génn dafa am certificat de décès. mais surtout kilifa. am certificat surtout mu nekk kilifa koo xam ne nekk préfet. mën mën ah day am certificat. waaw waaw am na ay collègues. écoute waaw nekk am na ay collègues kooku bi ñu bindu turam am na ñoo xam ne xam nañ ne waa ji n'existe plus. Mm-hmm. Oh mais mais gis gis nga suivi boobu am na ñoo xam ne franchement mais il faut toujours ñuy. état civil. waaw ah. boo fa euh, demee. je crois que état civil boo fa demee. et ça ne marche pas et il faut il faut orienter à des changements mais radicaux. dans ce mm, pays là. non mais il faut il faut paquet bi ñu nekkoon dafa am solo. dina am ñu dee. Uh-huh. dina am ñu ñu ñu feebar dina am ñu mm-hmm. dañu am naxaar. Mm-hmm. mais il faut euh, comme lu olof di wax rek euh, ou tubaab. pour pour pour. pour pour toj ay pour defar omelette il faut nga toj ay nen donc il faut que pour defar dëkk il faut nga jaxase carte gi mhm. il faut nga def ko mais ki koy def mhm. yàlla nañu yàlla dimbali mu doon nit ku baax nit ku gëm yàlla ko xam ne dafa jóg rek pour jëlale bi pour liggéeyal liggéey bi am na solo